salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen balu xaq di leen bal ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jégal di leen ndokkeel ci gàmmu gi ñuy jógee yal na yàlla nangu mbooleem luñ ci def ci ay jaamu yàlla te muy farg mbooleem bàkkaar bi jaanabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu suñuy masail tey ñuy am masala juróom fukk ak juróom-ñaar maanaam cinquante septième numéro muy jàng ma yamnaul xadathul asgar من يمنع الحدث الأصغر من الأمور التالية واحد مص المصحف سواء كان كاملا أو جزءا منه ولو آية ولو كان المص من فوق حائل أو بعود كما يحرم كتابة القرآن ولو آية منه كما يحرم حمله ولو بعلاقة أو بسادة أو كرسي أو ثوب ويجوز مصه في الحالات التالية أن يخاف عليه الغرق أو استيلاء كافر عليه فيمص ولو على جنابه ويجوز مص المصحف وحمله وكتابته إذا كان مكتوبا بغير العربية يجوز للمعلم والمتعلم حمله ومصه مصحفا كاملا أو جزءا أو لوحا لما يلحقهما من الوضوء لذلك من المشقة كلما أحدثا فيجوز ذلك ولو كان المعلم أو المتعلم حائضا أو نفساء لعدم قدرتها على إزالة المانع ويدخل في حكم المتعلم كل ما ثقل عليه القرآن فصار يكرره في المصحف بنية الحفظ والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم يحرم عليهما مس المصحف لقدرتهما على إزالة المانع بالغسل أو التيمم وأما الجنب فلا يجوز له مصه ولو كان معلما أو متعلما لقدرته على إزالة جنابته بالغسل أو التيمم ويجوز حمل المصحف أو جزء منه إذا كان في حرز يستره ويقيه من وصول قذارة إليه ولو للجنب والحائض آه، سني مسألة تيبي دفع dafay Euh, li nga xam ne mooy jëm ci wàllu ku yorun jàpp mu ne masala màndargay juróom fukk ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar li ñuy tere ku yorul njàpp bokk na ci laal kaamilu alquran wala xaaju kaamil wala aaya ci ku jàngul te jàngalewul alquran donte ne dafa am lu dox seen diggante bokk na ci di ko bind wala mu tege ci njeganaay wala chaise waaye dagan na laal ko donte danga am janaaba bu fekkee ni yéeféer da ko nara jël waaye it laal ko Euh, bu dee dañ ko bind ci beneen làkk bu dul arab bu dee kii jàng alquran ak ki koy jàngale dagan nañu laal kaamil ak lulul kaamil moo xam euh, euh, moo xam kii la seet nañu set nañu wala seetuñu maanaam seet nañu ci mbaax wala seetuñu bu dee jigéen ju gis mbaax wala gisiñ bu ñu setee te sangooguñu xaraam na ñu laal kaamilu alquran ñu laal kaamil waaye bu dee janaba la daganul ñu laal ko bu dee tafsir la tafsir la tafsir la it dagan nañu laal ñu laal ko ak jàng ko it nag ki yoru njàpp itam dagan na mu tari alquran ñaareel bi mooy ki yoru njàpp xaram na muy julli farata wala nafila wala su jootu alquran mooy booy jàng alquran di su joot na it muy muy wër kaaba kaaba gi yàlla mooy ki kawe te xam lépp ñuy jàng lool mooy fiqhul ibada buñ doon tënk dar si tey bi daf ñuy wax rek ci yarun Ah, lislaam da koo teere mu yor kaamil bu mat sëkk wala xaaju kaamil li ñu tuddee jukki wala loo xam ne aaya la ci alquran ki yarul njàpp mooy jàngul alquran jàngalewu ko bu ñu jàngul alquran mooy du xëy sax dina far alquran kooku warul laal aaya alquran te yarul njàpp aluba it waru ko laal warul di ko bind it te yarul njàpp warul di bind aaya it te yarul njàpp warul it fekkee ne dafa tege ci chaise mu di yëkkati chaise ba wala mu tege ci njëkkanaay mu di ko yëkkati teerul njàpp yooyu yëpp dañ ko koo teer dafa xaram ci moom waaye dagan na mu laal ko bu fekkee ne dafa téere bi ab yéefar da ko nar jël dagan na mu dem jël ko balaa yéefar bi da ko jël waaye dagan na it kaamilu alquran boo xam ni dañ ko dafa yab na fa nekk ci maanaam ci loo xam ni ay bagage yu bari la كيب أرموار وري مل نونو بامونا كولال هنا لال أرموار بي بري كامل بي دنكو بيني كي بنان لك برو العرب فرانسي ولا أنجلي ولا يوي منو كولال تميت دو القرآن دو عرب موتا كي جانج ولا كي جانج القرآن ممتمت ماي نانكو ملال تيري القرآن تيرون جاب دونتين كامل القرآن لا. ولا خاج وامانام جوكي ولا ألوبا da nga namu laal laal waaw ki nga xamante ni dafa gis mbaax jigéen ji gis mbaax wala mu gis eh, gësin mooy deretu njureel jigéen bu amee doom ñooñu xaram na ci ñoom ñu laal kaamilu alquran te yaruñu njàpp waaw te seetuñu kon xaram na ñu laal kaamilu alquran te seetuñu seet ki mooy lan bu fekkee ne eh, dañoo seet kon safrullah bu fekkee ne seetuñu kiy jàng wala muy jàngale alquran bu dee seetul mën naa jëm mën naa laal alquran waaye bu mu doon kaamil bu fekkee ne dafa set te sangoogul kooku dañ ko ko tere ndax boobaa mën naa jëfandikoo tiim wala mu dem sangu ji pour man koo laal boobaa du ko laal atte boobu nag ki am janaaba bokku ci ki am janaaba moom mooy ko xam ne dafa sëy ba noppi war a sangu farata kooku amul droit di laal kaamilu alquran te sanguwul waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci ñëw dagan nayi tiye ko fekkene manam ki yoru njapp tey jàngale mu tiye alquran doontene dafa am lu dox seen diggante couverture ak yooyu eh, bu dee téere boo xam ne téere tafsiru alquran la it mën nañ koo laal te yoruñu njàpp tamit ndax loolu tuddeewuñ ko kaamil moo tax même fekkee ne ki jàngul jàngalewul sax dafa am yeneen wax yu nekk ci biir moo tax ñaareel bi mooy julli xaram na ci ki yorul njàpp ki yorul njàpp xaram na ci moom muy julli ما حم فرتله ولا جلیگ نافله حرام نتی مامید مور كابجي بگی و ما خم ورگی ورگ اجله ولا عمره ولا وجب رکوره ورگ ورگ نافله رن لول ماشینی درس تاکینی جنگل لول ماي فکر ول عبادت و چی امروز ماي لاتش رگ من نگو تابه چی عينو ماضي تابه ولا احمدية تابه چی يوتيوب ان شاء الله بین کو خمیده نیکوتن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته